ñu dem ci euh, euh, li nga xam ne mooy boutique la solution mi ngi fa face Walfadjri am nañu ndoxum siti waaw bitigu solution ñoo man si tawat yi réew mi ak bitim réew ndoxum siti mu lay faj ba nga wér si kàttanu ak sunu borom. hémorroïde. hémorroïde bu nekk si biir wala si biti. estomac. estomac bu lay faj ba nga wér si kàttanu yàlla. asma. asma si kàttanu ak sunu borom boo ñëwee topp ko traitement bi si kàttanu ak sunu borom da nga tàggoog moom. ballonnement. ballonnement it noonu nii. tànk yi xaar. wala boog ay góom si kàttanu ak sunu borom da nga tàggoog moom. mag wala xale buy saw. si loo yëg dem saw ñëw tëdd. raay mu sedd. guyu bul bàyyi fenn fenn fenn fenn mënoon nañ see jox président ak Sall mu yóbbaale. mais nag maa xam day toog ba ci kanam. lu mu koy doy yaram waay metti gisoo ni mi ngi doon doxee démb. président luy metti yaramam. ah damaa xam tëddin wi fan yii yëpp tëddin wi neexul léegi da ngay tëdd doo mën a nelaw di bërëmu di jóg di toog. lu ne nga def ko mhm. kon nañ ko ko yónnee foofu la ca fa mu dem di umra mhm. euh, yàlla na fa fekk jàmm te jëlee fa jàmm am nga yàlla na nangoo ñu dem ci li nga xam ne nag moom mooy góor gu néew kàttan bàcc mu leer naññ naññ naññ naññ naññ nañ soo mm. bàccee léerul demal nga xooli leneen xam ne du ñàkk mën a bàcc wala boo bàccee léerul ni ñu koy waxee mayal ki ne sa wet mu bàcc waa par force day leer. Ah, nga doog a xam ndax ci yow la. waaw si yow lay doon kay mais bii moom boo bàccee moom xalaat kuli alin day leer moom si kàttanu sunu borom. bàcc gi moom mënut a ñàkk a ñàkk. normalement. soo bàccee rek day leer. tabaarkalla mi ngi mel ni nga tiim ay camp góol ba nga góol ba ifance nga bañ a xàmb nag boo xàmbee doo dugal. xàmb mooy. xàmb. luy xàmb. xàmb xamoo Moodu xam na xàmb. Moodu non xàmb de man yi ma ci xamoon mooy xàmb bi. ñu sangu. <laughs> waaw. loolu de xàmb xàmb suy xel dem ci kas kas bi Hmm? duut ba jàkkaarloo góor bi boo dóoree fekk ko fa bal ba loolu mooy xàmb maam nga dóor bal bi la loolu xam la wala luppe hmm? luppe luppe tubaab la ah xàmb mooy wolof waaw ah bu dee wolof mooy lay wax de mooy na ko hmm? mooy na mooy mooy mooy nga dem si jigéen goo góor tëkkut <laughs> nga bëgg séq moom yëfi saay saay alaaji mooy amul ay kii ay dégg <laughs> <laughs> ba li lay wax de ba léegi dajut de waaw non dama ne mais mooy am na déggin laa wax man d'accord naa li wax mais mooy dafa am déggin <laughs> ah ah dalaa mooy wala ñu ne ah yow mii da kii déggin dalaa mooy sax laajal sa sa sa wolof sa wolof dimbali ma ci mooy mooy bari na ay déggin maanaam diw dalaa mooy de yow mii ah wala wala bul ko mooy lu mooy loolu wala yow daaw a dégg ba léegi maanaam lu mooy loolu yow da nga koy wax lu mooy loolu en tout cas maanaam lu weesu loolu en tout cas daal li ma lay wax nii moom li ma lay wax nii moom déjul moom mais xamb moom tey laa mas a dégg xamb nga ni mooy dóor ci kaamu rate mooy xamb nga waxuma la raté mu jaar na le. waxuma jaar na mballu bal ba la wax de. Hmm? mballu bal ba. bal bi day tege nii yow nga daal ñu nga di dóor te laaloo bal bi gis naa koy def si tiktok bi. ki sol pantalon bu rëy. ah loolu mooy mballu. mballu lee mballu yi lan. ah, ah, ah dafa mballu bal bi. ah fi mu ko yóbbu moom. <laughs> yow yóbbu feneen mais dañu naan kii dafa mballu bal bi. baax na saa dina la envoyé message. saa wolof. kon mi ngi noonu am nañu euh, jigéen wala góor gu bëgg karaw tabaaraka waaw loolu moom dakk na ñàkk karaw ak bitigu solution. Hmm. yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen ñëw jot solution plus en même temps mi ngi fii 78 la 426 66 77 wala 75 630 50 50 ngeen jot boutique la solution mi ngi fii altine ba aljuma gannaaw 8h ba 16h30 incha allah nag suñu digganteeg ajjuma. Uh, ku ci mën a profité nga profité ndax ajjuma kilifa gi nee na dañuy julli ji bu ñu julli ji ajjuma defe bàyyiwaat ba semaine bi ñëwaat ñu doog a liggéey si kon boog lu ci waaye profité rek mën ngaa teel dikk